pouvoir par pour des raisons politiques et partisanes qui utilisent notre justice et notre état pour le réprimer kon ñun kooku la dañu koy soutenir pour mu jàkkaarloo ak ñooñu pour le préserver on voulait sauvegarder sauver un opposant qui est l'un des nôtres. mais souvent un effort de, de stratégique. waroon de stratégique waroon ngeen organiser combat. ba nga xam ne à un moment donné xam nga aujourd'hui euh, El Malick démb mu ngi naan. yaa a une autre forme de de de résistance ba tey gars yi dañ leen di wan yoon bi hmm. mais aujourd'hui l'opinion dafa dem ba nangu l'idée de dafa dem ba nangu ñu tëj Ousmane Sonko. ah oui waaw 2021 2021 bañ xaar xaar xaar xaar 2021 bañ ko tëjee hmm. ah? opinion bi dafa dafa dafa dafa dafa dafa taxaw xale yi génn réew mi yëngu ñu tëj ko 2023 gisuloo réew mi yëngu xam nga xaaral xaaral xaaral ñu tekki dama naa gisoo réew mi yëngu. même yéen waaye bi da ngeen nekk en perte de de de vitesse. parce que da ngeen xëcc ci corde bi xëcc ci corde bi euh, ci citoyen bi dans sa tête. mën na nangu ne l'État mën na am la la la la nu mu tudd le monopole de la de la violence légitime citoyen bi buy condamné dérive yi lay condamne mhm. mais état buy def maintien de l'ordre état buy ramener l'ordre citoyen bi da koy nangu mais citoyen bi du mën na nangu bu baax une opposition ou un chef de l'opposition buy dem ba di fomenter euh, ay mécanismes euh, de de résistance yoo xam ne ce n'est pas pacifique mais ça relève tout simplement de la violence. lenn li may njëkk a foofu mooy mun a mooy déjà boo nee nit ñi dañu dem ba ba nangu que ñu tëj ko sa commentaire la parce que tant que amuloo des instruments yu la permettre de le dire parce que c'est pas parce que nit ñi toog nañu que nangu nañ ko. et foofu ça me permet de dire quoi. sénégalais bu ñu nangul woon bu ñu nangul woon dinañu génn. c'est très différent xam nga sénégalais yi dinañu génn seen relation loolu moo loolu moo nax ñu bari et may mu ne il faut faire très attention à une résita résignation apparente xam nga xam nga régime yu bare def nañu ay erreurs d'appréciation où ils disent ils ont ils contrôlent tout téye nañu lépp et que le peuple s'est a fini par se résigner en se disant mënatuñu dara bàyyi nañu gis nga li ko dal New York. te man gënaluma bu ma sañoon du demee noonu je di dit bu ma sañoon sénégalais tàcc ko par jëfam ju rafet ci réew mi xaaru ko woon je suis quasi sûr que jàppul woon ne dina am boobu ampleur ña fa nekk du ñu ay japonais du ñu ay martiens ay sénégalais lañu jàppoon ni xëy na ñëpp toog nañu te bu ñu fa demee itam dina mën a dérouler mu dem fekk fa loolu c'est une réaction de sénégalais ñii toog defuñu dara ça s'explique quand tu tu es face à un état l'appareil d'état répressif très peu de peuple ñoo ko mën a dékku dans dans le court terme bu fekkee état bi bañalul da mu boppam dara y compris di rey nit ñi wala di leen emprisonné li ñu rey ak li ñu emprisonné ak li ñu def ci violence ak persécution bi ba képp ku fi nekk dans l'opposition booy wax ngay xalaat say wax parce que fii ma toog di wax ak yow bu fekkee le procureur wala le ministre de la justice fa ñu toog di seetaan ñu ngi xool ci samay termes ni nangam nangam lii mu wax neexuñu neexuñu ça veut pas dire fi wax lu mais neexuñu il trouve le moyen de te qualifier quelque chose pour te mettre bu ñu demee ba yegg foofu xale yi ñu leen di jàpp di rey jàpp si ñi nga xam ne ñëpp ils étaient un peu les cerveaux pas de la violence mais de l'organisation des résistances da ngay comprendre que à un moment donné ce peuple là se dise puisque ce régime ne s'interdit ñi changeons de fusil d'épaule. mais mais mais Cheikh changeons de fusil en faisant quoi quel est l'objectif. mais mais mais Cheikh d'abord d'abord d'abord il faut préciser que waaw bu ma am na ñoo xam ne c'est des détenus politiques. am na xaaral am na ñoo xam ne c'est des c'est c'est des détenus d'opinion politique sax laay wax du ma wax détenu politique. am na ñoo xam ne xale yoo xam ne ay erreur la ay incident mineur ay yoo xam ne jarul woon ñu leen di jàpp mais am na ci ñoo xam ne c'est des bandits. c'est des gens qui ont voulu brûler ce pays-là c'est des gens qui ont brûlé des biens publics et privés c'est des gens yu naroon a nërmel la sécurité nationale il faut faire cette différence là jàngaloo ma ci dara monsieur d'accord avec. bu fekkee loolu daf lay daf lay daf lay defal plaisir comme on dit. non pas daf may plaisir c'est c'est du factuel en fait. Maïmouna ah. képp koo xam ne da nga jógoon pour taal réew mi si lu normalul képp ko jógoon pour pour taal réew mi mënul normal. am na droit taal réew mi non xaaral ma wat je suis d'accord. Ah. koo xam ni manifestation pacifique taxul a jóg da nga doon fomenter wala ngay ngay comploter wala ngay def lu violent bu ñu amee preuve ci yow. que les lois s'appliquent man je suis pas un violent je suis pas pour la violence musuma ci woote duma ci woote et je sais que Ousmane Sonko wootewu ci wootewu ci et eh, qu'est-ce qui s'est passé récemment dama ni bu ñu nee dañu jàpp ay xale tëj leen ci kaso bi parce que dañu jàpp ne ñu ngi doon def ay cocktail molotov bu fekkee c'est pour taal ay kër wala taal ay institution rafetlu ma ko ku ñu am preuve mën nañ laa jàpp en tout dañ la teg yoon nañ la defal jugement bu équitable mais may mun a nangul ni ce régime qui impose ça à l'opposition waroon na moom dem seeti dans son camp parce que gis nañ ko teg nga ci bët ay nervi yu ñu indi ñoom ñu génn nekk ci mbedd mi yor ay fetal di tiire nit ñi kan nga dégg ñu ne la jàpp nañ ko ci mu ngi ci kaso bi te ah loolu c'est beaucoup plus grave aligné seen ay 4-4 ci seen siège parti médias yi filmé ko ñu yet ci ay nit ñu gis 4-4 yooyu ci mbedd mi avec les forces de l'ordre une chaîne de télévision étrangère filmé nit fetal dowaat ñëw taxaw ci seen wet ñu ne ñii ci ñoom la ñu bokk kan nga gis mu dem ci kaso bi mais may mun a loolu bu amee cim réew nga bëgg ni rek da ngay pointer du doigt ay jeunes parce que dañu def ay cocktail molotov dama la naan ki def cocktail molotov bul bul bul bul relativiser déedéet c'est grave sànni nañu cocktail molotov ci bus j'ai dit rey ñaari may mun a j'ai dit lépp lu ñu def man je suis un républicain ku def loolu nañu enquête nañ la jàpp nañu la teg yoon loolu mooy li ma gëm bu ñu ko defee xool ci camp benn bi ñu jàpp di foofu la ñu waroon xool muy l'opposition nañu tourner vers le pouvoir ñu ne sénégalais yi gis nañu ay preuves irréfutables que APR parti def nañu nangam nangam procureur convoqué na leen enquête nañ leen jàpp nañ leen tëj nañ leen ci kaso bi bu ko defee sénégalais yu bëre seen xel dina daal sur l'équité mais égalité boobu ak équité bi amul mais loolu nag may mun a bu fekkee nit ki yow même bu dee journaliste nga citoyen nga da ngeen ànd war a ànd ci ñiy ñi ñiy dénoncer loolu. mais ni la loolu réew mi waru fi mën nekk. mais mais mais Cheikh Tidiane. mais c'est vérité